lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yow mi nga xam ne yow yaa yor explication bi di expliquer yow moom dama lay wax merci beaucoup jëf ndax li ngay expliquer tege na ci yoon te it neex naa dégg te neex naa jàpp ndax loolu la yàlla santaane loolu la yonent bi santaane te ku am lu baax li ngay expliqué rek ci la jaar man daal euh, lu ma doon xalaat daal si Jalika dëgg la sonn na root na gis nga robine bi mu tëjee picc dafa jël ndox mi maye ko waaw gis nga bu toggee maire bi da ko naan ne ko bugguma ko mais man su ma doon moom moom muñ parce que yàlla dëgg rek lay àtte dont lu mu métti métti am na métti bi fu muy toll suñ borom mooy ñëw nag def mbiram te heure bi suñ borom ñëwee pour jàppale la rek da ngay am ndam sëy tas moom man bëgguma ko ndax dafay tas njaboot dalay def nit ku sew dalay def nit ku ñàkk fayda dalay def nit ku tumuranke te mel na ni sax meloo noonu vraiment film bi neex na torop torop torop torop torop wax dëgg yàlla man de kontaan naa ci bu baax a baax du ma ko mos a raté du ma ko mos a tardé saa su nekk maa ngi koy ngi koy seetaan dama koy seetaan ci télé bi télé bi dama koy seetaan tamit ci YouTube bi merci beaucoup jërëjëf. salaamaaleykum rahmatulah na ngeen def maa neen ziar lu bari di kontaan ci 33 épisode bi di leen wax ne kontaan nañ ci lu baree bare bari. ne maîtresse moom macha allah macha allah film bu neex a neex la ñun moom heure bu nekk dañ koy suivre di ci contente bu baax a baax a baax di wax na ah, Cheikh mais mi nga xam ne moom la wax ne moom la bëgg a bàyyi est-ce que dina yomb du yomb ndax sëy moom loolu ci duggal génnewul la ci dugg ci yomb na trop waaye génn ci yombul kon nag jàpp ne nekk ci rek ba xam. mun naa am tout temps di nga am beneen mm, solution daal waaye nekk ci rek ndaxte jigéen bu la bëgg la jigéen bu la bëgg bëgg bëgg la di wax ne ñun dañuy kontaan ndaxte lii dafa neex ci séeré bi dañ ciy gis suñu bopp ñun sénégalais yi ndax da gis ñu létt létt sénégalais nekkuñ di def ay prik nekkuñ di def ay cheveux yu xam ne dafa bari da ngay gis ñu létt surtout mereem nga gis létt yu mu léttu léttu yu rafet la léttu ba pare létt yi daf ko jàpp dafa nekk yëfi Sénégal ñun daal loolu bëgg nañ ko ñun daal lenn rek man daal lenn rek moom ma xaw a métti tuuti ci film bi mooy France bi dafa bari France bi moo ci xaw a bari ndax série bi ñëpp a koy seetaan ku jàng ku jàngul ku dégg France ku dégg France ñëpp koy seetaan te dañ koy suivre te dafa nekk dundu Sénégal ndax liñ ciy wane yëpp sénégale loolu la ñuy dund nekkul beneen réew kon nag ñun kontaan nañ ci bu baax a baax a baax waaye ñun daal lenn rek lañ ciy wax kese mooy ñu wàññi tuuti France bi daal France bi daal daa xaw a bari tuuti te ndegam ñëpp koy suivre xale ak mag dañ koy suivre dañoo bëgg ku ci xool rek nga am si njàngat gis si loo si jàngee macha allah série bu moom neex na am na sens trop trop trop trop trop macha allah di wax ne laal la. nekkaatal ni nga nekkoon a seex rek wujjee du dara nekkaatal ni nga nekkoon a seex rek amul benn problème waaw dëgg yàlla wax seex bëgg na la trop bëgg na la trop trop trop waaye nag dafa am droit takk ba ñeent waaw na droit takk ba dëgg yàlla di wax ne biram tam lim def ah man de dama koy xaw a ñaawlu ndax bu mu jàpp na xale bi ci kër gi mun a wax rek tax muy andi gel ci kër gi surtout koo xam ne ñu ne sa. xaritu yaay la loolu rafetul dara daal xale bi même bu mënta wax sax dina ko métti wala dina dem ba un jour dina ko xalaat wala bu demee mag xelam na day dama sama papa dana andi ay jigéen ci kër gi mam tàqali ko sama yaay nekkul daal lu rafet loolu daal moom ñu ngi koy ñaawlu moom loolu moom rafetul dara dara dara dara na moom moom <laughs> man dama koy sànni xeer bu nekk rek salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di bu baax soxna Caam mooy wax ci kàddu gi ma bëggoon a commentaire ci épisode 33 ah, man de joor moom a jaaxal joor moom ku ko bàyyi rek mu bëgg a jël biram nii rek te biram da koy foye te xamul loolu en tout cas daal moom mi ngi jàpp ne xale bi xamul munta wax wala wala mun wax te fekk na xale bi moom dugg na ci biir ba ne tata joor il est méchant xam nga kon xale bi moom xam na dafa waxul rek waaye xam na biiram timit moom dafa nekk koo xamante dafa bëgg fooye xaw ma dafa bëgg venger wu man loolu moo ma jaaxal dafa mel dafa bëgg venger wu ci joor waa diggante musafa ak kii waaye tour bi Racky ñoom ñaar seen diggante bu ma neex la Racky da koy tooñ ah, ñoom ñaar taal seen diggante neex na ma torop seen relation moom war na continuer comme mi ngi koy demande ne ko mu takk ko daf ko war a takk moom it xam ne jigéen yëpp bokkuñ yem ndax mi ngi naan ko ëllëg su ma la takkee suñ xulooyee nga wax ma ko pourtant mën na ko bañ a ndax jigéen ñëpp yemuñ comme ñu yemadikoo bokkuñu noonu la jigéen ñi tamit yemadikoo en tout cas série bi neex na torop man su ma ci lay wax damay damay ferte damay am ferte ci sama bopp ndax série bi sénégalais yëpp ko bëgg li ndaw si wax sànq ci série bi jàll épisode 30 bi mu ne ak Marème seen rôle bi bi ñuy joué dañ koo man parce que ñoom nekkuñ di mag yeew jàpp seen kanam gi xëpp ko peinture ko ba mu doyal daal ñoom daal dañoo naturel waaye man daal Jalika bis bu yégee ne papaam amoon na relation ak xaritam boobu dina garaaw lool comme ni mere marem comme da doon génn ak Cheikh Diagne tax mu mere ko rakki jëkkëram magi jëkkëram mu mere ko xawma bu yégee papaam ak xaritam lan la war a def bu yégee joor ak jëkkëram lan la war def man Jalika yërëm naa ko torop Euh, salaamaaleykum mbokk yi na ngeen def ba yéen a si jàmm euh, maa ngi leen di wax nii maa ngi suivre maîtresse d'un homme marié neex na trop neex na lool lool sax neex na trop moom wax dëgg yàlla euh, li ma mën a wax daal mooy laala neexoon na ma trop au début moom wax dëgg yàlla mais pour man dafa gaaw a découragé wu waaw. dafa gaaw a découragé parce que fu mu nekk nii kii na daal mu ngi jaxase na xelu seex bi ba seex tey mën a bëgg tey génn ci bi waaw pour man daal loolu waru ko woon parce que góor ñi loolu yàlla may am nañ droit am ba quatre jabar kenn mënu ci dara daka waroon accepté rek marem ñëw sey si ñu ñu wujje daal man noonu man daal noonu laa gisee woon laa wax dëgg yàlla moom a gënoon neex si film bi mais depuis boobu daal laa xaw a découragé wu rek si moom wax dëgg yàlla euh, deuxième bi mooy joor joor lu muy lu muy def ak kii nu mu tudd biram pour man daal c'est pas normal parce que nu mu mën tamit daal kii Jalika xaritam la xaritam la ñoo doon ànd guddeeg bëccëg mu delluwaat encore di. di nag ak jëkkëru kii Jalika loolu rafetul daal pour man sax Biram bugg ko de pour man Biram bugg ko da koy fowee rek na bàyyi lu muy def moom tamit ah, Kanta Racky ak Moustapha nag moom ñoom ñaar tamit sama diggante seen diggante daal neex na ma trop trop parce que ñoom ñaar seen diggante ñoom ñaar daal dañoo sincère te dañoo yàgg moo wax dëgg yàlla parce que Racky sax buy demee bay ree sax Moustapha moo tax. waaw parce que amul woon jàmm moo ko yaayam mais Moustapha moo ko doon génn loo di ko reeloo xam nga loolu yëpp dafa nekk ci xol ba rak yi loolu yëpp mu jural ko loo xamante ne muy mbëggeel ma bëgg Moustapha bu baax man daal su ma sañoon daal Moustapha day nangu ci mu ko pot mu ko ci lu mu ko wax daal parce que nee na ko ni ndax doo ma takk mu ne ko amul dara tey jii nit ki boo ko bëggee doo xool ci lu mu am doo xool ci lu mu amul. pour moom daal bu bëggee rek ragi bëgg ko daal war na kaa mën a takk te bañ a seet loo xamante ne moom amu ko waaw merci beaucoup jërë ngeen jëf loolu rek daa amoon li may wax. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di leen wax ni gëj nañu déggante ko mais nag bàyyi naa leen xel chaque jour parce que maa ngi déglu en fait info yi xam audio yi yéex. en même temps chaque jour chaque fois maa ngi seetaan film bi comme ni ma waxee mais toujours rek xam nga di si bàyyi xel di am lu may jàngat toujours xam nga comme d'habitude euh, Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr voilà mu ngi noonu quoi mais nag euh, dama am tey benn jàngat bu ndaw bu ma def euh, bëgg si partager ak yéen xam naa ne sax dëggoogu ma seen audio si épisode. 33 bi comme ni ngeen ko tàmmee def ba jàngat ngeen si am yéen ñu mu am nuñ si jàng pour commentaire ak yéen mais nag dinaa ko dëgg peut-être si kanam mais dama am jàngat bu ma def tuuti bëgg ko waa partager ak yen si côté de Bakary Bakary euh, Juru Jalika ah Bakary Juru Jalika ñëpp xam nañu loolu euh, bàyyi jiit la. comprends ngay jiit gam la ah bokk sirima fook xam sirima fook mais nag euh, dafa am benn jàngat bu ma def si Bakary mooy que Bakary ak Biram ah, hmm, ak Biram parce que Cheikh su ñu amee jàngat bu ñuy def xam nañ ne Cheikh ak Biram hmm, gëw ma ne ñoo bokk pap man gowma ko si épisode yëpp ah dama ko si jàngat gowma ko mais nag papi Cheikh moo yàq biram li mu nekkee xale parce que si biir sëy bii la ñu nëbboon affaire boobu parce que histoire boobu peut-être dinañ dem ba fi mu benn fi mu feeñ foofu mais man dama gëm ne dama am jàngat bu ma def ma gëm ne ni Bakary Euh, te épisode 33 laa ko gise ah parce que dama gis maire bi mu ngi koy menacé sinon dina yàq sa sa vie xam nga wax lépp donc am na point bu mu ko képp boo xamante ne moom ak maire bi la te boo seetloo moom ak maire bi si seen histoire peut-être biñ nekkee à l'âge de très jeunes boo seetloo. am na benn tâche bu jaar seen diggante am na benn affaire bu am seen diggante donc man tey dama naan euh, Bakary moom moo jur Biram man loolu laay wax Bakary moom mooy pape Biram sama mère bi foofu la ko parce que peut-être daf ko mos a violé si biir sayam daf ko doon doxaan si bi mu amee ci kër mu koy doxaan si suuf ba ëmb am si xam ñu ne bëgg a parce que. Euh, olof dafay wax ni euh, deret du fen comprendre olof dafay wax ne deret du fen parce que boo seetloo boo xoolee biram ak Cheikh soo leen xoolee seen kanam di nga xam ne ñaar ñi bon bien vrai que ñoo bokk yaay mais bokkuñu pap soo ko seetloo di nga ko xam comprendre la fois passée maa ngi déglu benn audio benn gars mu ngi wax ne. rakk yi paa boobu moo ko violé loolu mënul nekk gis nga nit ki kii nga mës def lu bon si bi nga nekkee xaale ndaxam rakk yi mënul fàttaliku loolu mais image bi wala affaire boobu mu def noonu bu fekkee moo ko violé comme kooku ni mu jaay que moom xalaatam la waxee comme man ni may waxee sama xalaat du dama ne dama daax xalaatam mais man nag dama nanguwul foofu quoi parce que. bu fekkoon ni moom moo ko moo ko moo ko moo ko violé en fait bu fekkoon moom moo ko violé comme ni mu ko waxee moo violé Racky kon Racky su gisee paa boobu da kay ragal day xaw tiit day am lu muy tiit si côté moom ak paa bi du am yërmande boobu comprends du am yërmande boobu parce que tout temps que su ko gisee rek dafa am histoire bu mu koy bu mu koy def day man ni ku koy tiit wooyu mu koy daw wooyu mu koy maytu xam mais en tant que yërmande yërmande fu mu am si diggante nit ak nit rek deret feeñ na fa yërmande soo ko gisee si diggante nit ak nit mu demee noonu rek xam xamal ne deret am na lu mu fa laaj comprend parce que yàlla ak mbiram te ni mu koy doxalee xam ñun mënuñu si dara euh, mbindeef lañu rek mais nag yàlla moom moo tëralee àddinaam ni mu ko tëralee donc foofu man nanguwuma nanguwuma ne rakki pa boobu moo ko violé woon foofu nanguwuma dama ne tout temps am la mais nag euh, côté de Bakary ak euh, Biram ñu bàyyi si xel bu baax parce que man sama gëm-gëm wala sama gis-gis si épisode 33 tey bii ma seetaan dama gis ne ne moom moo jur Biram Bakary mooy papi Biram peut-être si histoire bi na demee wóori je ne sais parce que mu mosuñu seetaan film boobu te mosuñu si di wax aussi je ne sais pas kumpare si ñun comme niñ koy seetaanee épisode 34 bi di ñëw kumpare yi doon si ñun parce que xamaguñu wi xew xamaguñu wi mais nag suñu jàngat sama jàngat man Ibrahima Sarr personnel euh, loolu laa gëm mooy que Bakary mooy papi Biram donc ma am pour partager ko ak yéen pour ma dëggoo tamit après seen audio comme ni nga ko tàmmee di peut-être dinaa comprendre après. asalaamaaleykum na ngeen yendoo ça va yéen si jàmm alhamdulilah. waaw góor gi li nga wax moom vraiment d'accord naa ci Cheikh lu mu def du noonu nit même bu fekkante ne yaa ko takk yaa ngi dégg même bu fekkante ne sa doom la war ngeen waxtaan li nga bëgg balaa nga koy def mais boo ko defee rek ba pare nga di ko wax ça va loolu moom dafa fekkee ma ne trop. lu may lu may jël ci nit mun na mun na dund ba dundam jeex fekk doo dootul dellu ci nit li bon lépp mun na ci am ah bi mun lépp mun na ci am mun na mun mun na perdi tête mun na perdi ah, mun na ci dof donc ça un deuxième fois mun na rey nit à cause de loolu troisième fois. mun na def affaire yoo xam ne vraiment moom du du ko tey moo taxit nag même sa doom balaa ngay def dara war nga ko war nga ko waxtaanal ba xam point nu muy dund ba xam nu mu bëgg ak lu mu am ak lu mu bañ waaw mais du jékki-jékki rek nga def li nga lu la neex bon loolu baaxut merci. allo salaamaaleykum man de li may wax ci seen théâtre bi théâtre bi moom man depuis dépuis bi ma nekkee Sénégal bi ngeen ko commencé ba léegi moom laay seetaan dépuis ni ma ñëwee Espagne moom laay seetaan xam naa ne gouvernement bi li mu waroon def ngeen def commencé so saison théâtre bu saison bi jàllee ñu seet ku gën a raw ñu jox ko ñu fay ko xaalis bu weex taal ñu seet ba nga ñu seet ba tey ñi biir ñi biir ñu gën a nekk acteur ci biir ñi doon théâtre ñooñu daañu am dara gouvernement bi waroon na am part foofu ci loolu waaw ndax théâtre bi wax dëgg yàlla ah léegi avancé na waaw marem nag bu mu yàkkamti bu mu ñaan baat bu mu yàkkamti waaw na toog xam ne affaire yi day jàll loolu la kee nag moom ah, aaw yi moom noonu lañ mel wala leen maye wu ju ñuy dof doflu dara jotu ko dara jotu ko waaw kële itam rakk yi xamoon na ñoom seen ànd boobu xamoon nañ ni ah, dañoo nabante nabante nag a ah, wax ju egg nee ni dofoo ko xam ku góor ki war na koo xam bu baax bu yàgg yàgg waaw ñaari ni mën nañ daa naba daañu nabante ba takkante ba samp kër ci kenn waxul sa morom dama laa mas a napp foofu yoon woowu lañ awoon nag ok wasalaam. asalaamaaleykum sa waa ji na ngi lay ziar ñu ngi leen kontaane sa waa ci lu ngeen ne ngeen am jàmm baax naka koor gi baal nañ la àq baal la ñu àq yéen yàlla boole baal maa ngi déglu sa intervention léegi ci ci ci ci YouTube bi ngay def intervenir ci ci théâtre yi ak jamono bi nu muy doxee. vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ñu ngi koy rafetlu bu baax sa contribution bi rafet na rafet na trop ñu ngi koy rafetlu macha allah ah, gars de li ñuy daxal ci seen euh, théâtre bi surtout euh, maîtresse ñoom Cheikh Diagne bi waaw ah, boobu moom euh, liñ ci wane nekk na loo xamante ni exemple bu rafet la daal waaw ah, man daal li ma ci wax tuur mooy ne ba théâtre bi daan commencé am na benn gaan bi ñu daan wax muy wax. moo daan wax wala bu amee benn instant bu taxaw nii rek muy wax naan nit ku nekk boo yeewoo suba teel yaa ngi xaw ma lan am lu mu doon expliqué quoi kooku de fait ñu dindi ci épisode yi may seetaan yëpp gisatuma ko mu jox te moom waxam da ci daan am solo quoi affaire bi du seetaan bi rek mais après ndaw ñiy seetaan ñu mën a yee seen xel xam ne bon ñoom la ñuy waxal ñu mën a am xel bu rafet mën a xam lu ñuy nekkee ci société bi quoi mën a comprendre li ngeen di joué lu mu doon loolu kooku waxam doon na ci am solo. waaw loolu rek laa ci doon euh, wax merci jërëjëf. asalaamaaleykum waa Louxew TV maa ngi leen nuyu di dama bëggoon participer si euh, série maîtresse d'un homme marié waaw man moom laala laa àndal ndax laal moom Cheikh bu takkee Mariam loolu normal la waaw Cheikh warul euh, jël Mariam di ko indi ba ci biir néeg la ba ci kaw laal bi loolu du normal waaw ndax laal soo ko xoolee sax. lu muy xalaat moom su xalaatee Cheikh daa doon indi Mariam bu ci biir néegam waaw bu ci kaw lal bi moom loolu daf koy métti ndax moom sax dégg nga moo euh, dégg nga moom mu ne Cheikh moom du men ak moom lu mu menoon ak moom euh, lu mu menoon euh, ndax Cheikh daa takk Mariam waaw Cheikh bu takkee Mariam loolu c'est normal mais Cheikh warul jël Mariam di ko indi ba ci biir néeg bi. te moom bu mu dem di takk Mariam sax war na waxante loolu ak laal la mu wax Lalla mu expliquer ko yëpp après Lalla mu xam ko après Lalla bu nangee baax na bu nangul sax baax na waaw moom warul indi Mariam bu ci biir néegu néegu Lalla eh, néegu Lalla di ko def affaire di def affaire yooyu loolu sax waaw Cheikh warul def loolu ndax laal sax loolu moo ko metti waaw loolu moo ko gën a metti sax waaw da ngeen rek Paris laa nekk sama wolof yi baaxul moo tax. waaw salaamaaleykum mbaa jàmm ngeen mbaa jàmm maa ngi leen di ziare yéen ñëpp di jàmm sàkk jàmm ci yéen ñaan yàlla suñu borom yàlla wéral cër yi te liggéey mi ngeen def tam yàlla suñu borom barkeel ko wax yàlla yéen a ngi yee doomu aadama yi bu baax a baax a baax suñu neex na trop trop macha allah. waaye man daal fi ma kii moom fi ma xaw a kii daal moom laal la daal laa xaw a mere moom dëgg yàlla parce que tam wujju jërul loolu ndax wujju jërul dof jërul dara ndax war naa suuraale ëllëg ak njabootam war nañoo mën a am ay doom baay ëllëg te doom baay neex a neex goo xam ne ku ne war ko koo bëgg te ku ko bëgg ku ne tam war nga koo bëgg say doom man daal laal la moom daal laa mere trop dëgg yàlla moom mere naa ko trop trop trop mais mareem tam nit ku baax la parce que ku parce que bi mu nee jëkkër ji il faut que danga jox ay ba jàppanteeg moom après bi mu demee da ko woowaat téléphone jéggalu ko wax ko ne muy ko maa ngi sa wet maa ngi lay jàppale maa ngi lay def lii lépp mais laala daal li mu def moom man daal moom laa contre moom ndax doon na loo xam dootul fay mukk abadan daay man da te doom ju jigéen jooj tam bis bu màggee ba nekk war nekk ci néegub sëy dañ ko naan sa yaay bi ko may wujju dafa dof ndax nit ku ne lu mooy li muy def war nay sóoraale ndax a njabootam daal man daal laala moom moom daal laa mere moom waaye bu dul loolu moom wax dëgg yàlla si des yëpp neex na trop macha allah te na yéen nit ñi tam yal na leen yàlla la faj teg daal fi ngeen bëgg a yóbbu yegg daal yal na leen fa yàlla son bëggam yegg kontaan naa trop trop macha allah maa ngi koy toog benn du ma du ci rate benn benn benn lu may def ba commencé damay daal texte yi sama téléphone sa koy seetaan ci YouTube bi saa bu dee dama koy seetaan toujours benn boo xam naa ko jël moo ko seetaan ndax njariñ ko koy seetaan njariñ rek nga ci jëlee la mais laal la moom mere naa ko trop moom trop ka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu waa sit bi yëpp ñoom ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di wax vraiment rafet lañu rafet leen nañu émission bi ak ni ngeen di laajee xalaatu nit ñi vraiment waaye ma ne dama ci wax tuuti rek ci laal la dama ko bëgg a wax ne yow ku bañ wujju jigéen ku bañ wujju bugg ne xanaa yow amoo doombaay ma ne dama am ay doombaay yoo xam ne wallaahi lazim fi ñu ma féete yaakaar ma ne ki ma bokkal nekk bay mën na ma faa féete moo tax ba wujju def ko muy dara wujju wujju bokk wërsëg la bokk wërsëg la moom ci sa moom de daa ma koy xalaat ne moom ci boppam na xam ne rek ne loolu du dara dara dara dara na jéem a maslaa ñëw bu ñëwee ñoom ñu juboo ci jàmm ak salaam loolu daal lañ leen di ñaanal ok loolu daal moo ci sama xalaat ku bañ wujju ko ne da amul ay doom baay yi ma am rek. waaw ah, bonsoir doomi tos ba mooy li na ngeen def fu may nag si jàmm alhamdulilah kon yàlla na jàmm yàgg ah ma dem ma dem ah ma dem man daal ma dem ma daal ma dem ah jëkkëru jàmbur jàmbur la dem ay itam utal sa bopp ki ñu utal sa bopp ñoo gën ah wax ah, dëgg si la de salaamaaleykum waa Lu Xew TV na ngeen def mbaa yéen si jàmm nuyu nañ leen ziar nañ leen gars yi ñu ngi leen nuyoo ñëpp mboolem kuy dégg suñ kàddu rek ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaw di leen baalo àq si weeru koor bi yooyu ñëpp waaw di ñëwaat si xalaat yi rek ni série bi passé nii waaw série bi paase daal man li ma si jàngat moom ah mooy Jalika relation beeg waa ji man daal su ma doon moom na si tey fois waaw parce que góor ñi daal sawaay <laughs> ñëpp ak mën a yem su doon moom daal mu tey ci waaw loolu daal conseil boobu daal laa koy jox waaw damay bañ bukki bi ko mattoon fee ñëw mattaat ko fii loolu daal laa siy ragal waaw mais wax dëgg yàlla kontaan nañ si trop kontaan nañ si série bi trop neex na wax dëgg yàlla macha allah commentaire yi si mën a joxe bari na waaw sama acteur bi sama actrice bi tamit moom it laal nañ ma waaw Racky ak euh, Tafa ñoom it. waaw ñoom ñoom ñoom ñooy samay acteur kii mooy sama acteur kii mooy sama actrice waaw wax dëgg yàlla waaw seen ànd moom neex na ma lool wax dëgg yàlla neex na ma lool. waaw beneen bi ma bëggoon wax tuuti rek mbokk yi mooy dama bëggoon a wax si Cheikh tuuti rek waaw Cheikh moom moom warul yor warul yor ñaari jabar man loolu laa gis quoi waaw parce que dafa feebul quoi waaw góor moom bu feebulee rek. moom euh, warul mën a yor ñaari jabar attanu ko attanu ko sax benn bi sax day diis si moom asamaak yor keneen waaw parce que euh, góor yow yaa war a dogal sa kër mais ay jigéen taxaw di yooxu di kii man daal gisuma ne moom war naa mën a yor ñaari jabar daal gisuma ko waaw seex yorul profil boo xamante ni war na mën a yor ñaari jabar waaw non non parce que ni muy dundee moom kenn du ko dundee ku yor ñaari jabar waaw dafa faible quoi dafa xaw a feebal waaw man daal seex moom loolu mooy sama xalaat si moom. waaw te su ma doon moom it du ma du ma fase ndaw si du ma ko fase waaw su ma doon moom du ma fase ndaw si pour lan ma koy fase ngay jabar kii di jabar ma ma ma ma ma koy fase ndax ndax lan ndax lan ah la moom na ko bàyyi foofu rek moom na ko bàyyi si hôpital ba rek na ko bàyyi sa hôpital ba su bëggee jël ayam mu jël su ko bëggul mu dem sa kër aye ji jàmm na ñooy. bu nekkee buñ ayee ci moom bu koy bu nu bu koy def lu ko naqari mu mu tëdd ñaari fanam bu ñaari fanam jeexee mu dem sa keneen ka am ba am fa bànneex jamono ñooy waaw ba feneen amee ba léegi kenn sonut ah bu mu sonal nit ñi